ab tutali ko moo di jàngoro ci yi nga xam ne rek ñoo nekkee ci dëkk yi maanaam kaay gi ñu xam ne jamono a ci kay Dakar kay maanaam daal li nga xam ne am na bomb boo xam ne boo moytul bu kalaatee du baax askanu Sénégal nag jamono ji rawatina ñi nga xam ne ñoo nekkee ci Dakar ñoo war a toog rek la téye seen ndax cas communautaire yi tàmbale yi nga a moom kay dafa mel ni ku jaaxle lool fas yéene guerre ak li nga xam ne rek moo di Covid 19 yéene gi di nga xam ne kookee kay muy geeral moo jaaxal àdduna bi ndax covid 19 te jamono ji li nga xam ne rek ma ngi koy faagagal jéggi na dayo lool ki nga xam ne moo jiite ak ne kay ah moo jiite OMS maanaam daal kàddu yi nga xam ne rek yëkkati na ko moom kay dafay xam ne mbir yi mën naa gën a jéggi dayo lool maanaam daal boo moytul li nga xam ne nag mooy raam boo moytul ñag bala jëm buñ ci waxul dana am ñu bëri ñoo xam ne rek dina faat faatu dinañu faatu ci diwaanu Afrique gi vox populi di ñu xam ne xawma faatu wala déet waaye nag jafe-jafe yi tàmbali naa bëri ci réewum Sénégal tey nag covid bi moo la la ko nga xam ne rek moo di couvre bi tey nag yenn yóbbewuñu nga xam ne rek moo di covid 19 fekk jamono joojee yéene kaay gi di xam ne ko yóbbee bari na ndax premier ministre bu Canada moom kay jooy la def jooy xattee la wax jàkkaarloo askan wi di xamal ne maanaam daal ñi nga xam ne métti maanaam daal ñi ñeewante leen lool askan wi nga xam ne ñoo nekkee foofee tey nga xam ne ñooy dund moo di covid xew daal ko maanaam daal xeex googi am na ci yeneen yoon yoo xam ne des na fekk jamono jooje libération yii ne kaay duñu xam ne a jafe-jafe yi daal maanaam daal tàmbali naa bëri keneen koo xam ne tàmbali woon naa am ay jafe-jafe yéenekaay gi duñu xam ne muy Dame Amar ci Fatou Iba Thiam moom kay jamono ji mook ñama àndal jamono ji ngi ci mandat ne soriwu ñu mandat jamono ji nag ñoom kay la xam ne mbir yi doxatul nam daan doxe waaye nag jamono ji maanaam daal pexe bañ ci jël moo di ay thermoflash yoo xam ne dañu ko yor maanaam daal loo xam ne ku ñëw ñu xool sa tàngaayu yaram mu nekk nag lu doy waar